gëdd weg nañ leen ngallaawaay nañu góor góorgóorlu ci jàppale ñu parce que yenn excès yi ñuy yi gis yenn ëppal yi ñuy gis bu dee da ngay intervenir ci waa opposition amul lu ko justifier fii ci réew mi kon yii ma wax nii dañu am cër bu rëy rëy ci la war a saxal jàmm ci réew mi fii nag ak 2024 Macky Sall na xam ni dootu ci ko may fu mu noyee